mbokk Sénégal tey niñ leen ko diggee woon dañoo ñëw ak yeen ngir waxtaan ak yéen ci benn sujet boo xamante ne am na solo lool mu nekk liñ tuddee mariage te moo di néegu sëy mu nekk loo xamante ne bari na ay jafe-jafe lool ci jamono bi ñu nekk tey mbokk yi ñuy déglu mariage yàlla moo ko yoonal ci alquranul karim moon wax na moom subhaanahu wa ginnaaw bismillahi irrahmani irrahim yaa ayuha ittaqu rabbakum alladi xalaqakum min nafsin waxida wa xalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kasiran wa nisaa fattaqu llaha alladi tasaaluuna bihi wal arxam inna allaha kaana aleykum raqiba aaya boobu bokk na ci aay yi nga xamante ne moom la yoon ci salaa sallam doon takkee sëy aaya bi yàlla daf ñu wax ne yéen nit ñi na ngeen ragal yàlla rawatina ñaari woy dencante yi muy ko góor ki muy ko jigéen ki lu tax ñu war a ragal yàlla parce que sëy dafa sensible ñaar ñi ko sekk ñoom rekk ñoo xam la nekk ca biir kenn mënu ko wax ba jeexal ko yaani sëy day egg foo xam ne ñaar ñi ko sekk rekk ñoo xam la nekk ca biir bu amee keneen ku leen mën a ñetteel yàlla lay doon moo tax yàlla boo xam moo leen ñetteel xam la ca biir ak la ca biti mu ne man yàlla man may surveiller li nga xamante ne mooy sëy bi yàlla wu dellu siwaat wane ne sëy boobu góor ak jigéen ñoom ñoo koy def xalaka minha zawjaha góor boo xamante ne ngooram mot na diina mot na jikkoom mot na ak jigéen boo xamante ne mot na jigéen mot na soxna diina mot na jikkoom baax na ñoom ñaar ñooy sëy muy couple yàlla tudd ñetteelu tomb bi ci sëy te moo di objectifu sëy wa bassa minhumaa rijaalan kasiiran wa nisaa mooy njaboot bi nga xamante ne moo ci war a juddu njaboot bi nga xam moo war a judd ci sëy bon sëy du du ba kese mais njaboot moo ci judd moo ci juddu moo tax yàlla ne bon sëy boobu nan ko garder nan ko wattu parce que sëy boobu lépp lu ci nit ki def rek des ko ko laaj bon loolu dama ko doon ubbee émission bi ci yoonal bi nga xamante ne subhanahu wa taala moom la yoonal li nga xam ne moo di sëy bu ñu demee ci xadis yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafay wax ne yaa machar alshabab man istataa minkum albaata falyetazawaj yéen jeunes yi muy salibata célibataire bi nga xam ne amagul soxna muy célibataire bu jigéen bi nga xamante ne amagul boroom kër yonente bi képp képp képp kenn ci yéen bu fekkente ne mot na sëy rek falyetazawaj takk soxna parce que takk soxna boobule day mujjee nekk saafara ci ku góor ki mais soxna day nekk saafara ci jëkkëram waaye soxna si tamit jëkkëram saafara la ci moom xaalis boobu di wane bon dañoo war a sëy loolu naturel la ci doomu aadama waaye mbokk yi dafa am ñetti xam-xam yoo xam ne dañuy intervenir ci sëy surtout bu nekkee ci côté lislaam bi ci jiitu mooy fiq fiq ñu ñu tuddee ko présidence matière la boo xam ne day jàngale nit ki yow mi war a takk soxna noo war a mel ak charte ya ak keno ak say ak say warugal ak say àq jàngale tamit soxna si nga xam ne moo war a sëy soxna soosu yan qualité la war a amee waaye wone soxna soosu tamit lan mooy ay àqam waaye lan mooy ay devoiram mais dañoo faral di gis ne xam-xamu fiq nekkul xam-xam boo xamante ne tey mën naa defar ay sëy yu bari yoo xamante ne dafay yàqu loolu du qualification ñu amaat beneen xam-xam boo xamee dafay intervenir ci wàllu sëy te moo lu mu tuddee tey loi ñu gis ne tey sëy bi bu amee problème surtout rawatina ci suñ réew yi mooy ku góor ki walla ku jigéen ki day jóg dal di dem tribunal ñun li ñu jàng ci wàllu sëy rawat ne ñun fii ci senegal ci sunu aada ak suñu cosaan bépp soxna soo xamante ne yóbbu nga sa jëkkër ci yoon mën nañ wax ne sëy boobu dina jafe pour ñu defaraat ko parce que ñun sénégalais ci boppam ku la xese yóbbu ci yoon rek daanaka def na la noonu àdduna ak àllaaxira bon mu mel ni sunu aada ak cosaan euh, bëggul jëkkër buy yóbbu soxnam ci yoon walla soxna buy yóbbu jëkkëram ci yoon te sax bu ñu demee yoon lan moo fay xew li ñu faral di gis première audience bi dàq nan ko dem leen waxtaanaat ngeen dellusiwaat amu leen solution ñu continuer juge bi di enquête lu xew lee moo xew ba projet ba jeex fa muy mujjee mooy jëkkër bi nii jabar ba ne mais est-ce que ñooñu bu ñib sëy mën nañ delluwaat ci néegu sëy néegu sëy bi dootul fa mun a nekk loolu moo tax boroom xam-xam yi kër yee beneen xam boroom xam bu bees bu tudd fiqul usra muy xam-xam boo xamante ne li ko tax a jóg moo di sëy balaa nga ciy dugg nga dugg ci ci xam-xam mu jox la ay njàngat jox la ay signe jox defal la ay étude ba nga xamante ne soxna si nga xamante ne moom nga bëgg a seyal boo gisee boo defee étude yi ba mu jeex yaakaar na ne quatre-vingt-dix pour cent boo ci duggee say boobu day réussir kazalik fiqul usta nekk xam-xam boo xam ne dafa ñëw fekk soxna si nga xamante ne moom la ñuy labat mu am ay njàngale yim ko defal defal ko ay étude jox ko ay signe yoo xamante ne signe yooyu bu ko gisee ki nga xam ne moom la bëgg a bokkal néegu sëy yaakaar ne quatre-vingt-dix pour cent wala quatre-vingt pour cent sëy boobu sëy bu neex lay doon mais fekk ustad na la jàngal am na koo xamante ne boo defee moom boo defee ci moom ay étude mu am résultat yi mu la jox bés bi ñu takkee sëy bi bés boobu la sëy bi tas yaani am na couple boo xam mënut a continuer day tas kenn mënu koo fexe defar ko ba mu ba loolu am fekk ustad na ko jàngale ñett ñetteelu élément bi nga xam fekk ustad na ko jàngale mooy ku nekk ci sa néegu sëy di dund ay jafe-jafe moo xam ci ku góor ki moo xam ci ku jigéen ki te tey boo dee suñ societé boo laajee góor yu bari ay jafe-jafe yu bari lañuy dund seen biir néegu sëy ñenn ñi sax dañu dem ba egg démb bu nekkoon tey duma ci dugg mel ne góor yu bari dañoo am déception ci seeni soxna mais tamit ñu gisaat ne boo demee ci soxna yi ñu bari ci ñoom dañuy naan bu ma xamoon ne kii ma dugg ci moom nii la mel wala dëmb bu nekkoon tey duma dugg ci sëy bu mel nii mu mel ni jigéen yu bari dañoo découragé ci néegu sëy boo ñëwaatee ci góor yi am na góor yoo xam ne sawar ñu sax wàcc ñibbi seen kër ndax dañuy daw kër ga parce que rekk mitit ba fa nekk mais am na jigéen yoo xamante ni tamit seen sëy yëpp rongoñ la rongoñ la ndax dafa mel ni adduna daa tukki seen kanam amatuñu yaakaar seen yaakaar dafa tas amatuñu bànneexu sëy amatuñu benn yaakaar ci àdduna tey daanaka dund bu ñuy dund ci biir néegu sëy ak dund ci safara benn la loolu yépp nag bu fekkee dal na nit ki ci biir néegu sëy fiqul usra muy xam-xam buy jàngale nan la ñuy baaxalee sëy nan la ñuy neexalee sëy xam-xam boobu mën naa génn couple yooyu ci problème boobu nga xam ne moom la ñu suñu émission bu tey daanaka lancement rek lay doon fiqul usra def ñoo jàngal ne Sénégal 14 million la ci góor ak jigéen góor yi dund biir Sénégal yépp bu la neexee nga dem Afrique góor yi dund biir Afrique yépp bu la neexee nga jël àdduna bi yépp góor yi dund ci adduna bi yépp juróomi jëkkër lañu góor yi yépp juróomi jëkkër lañu bon balaa ngay dugg ci néegu sëy war ngaa xam kan mooy sa jëkkër ci juróom yooyu juróomi jëkkër yooyu mooy kan ak kan xam-xamu fiqul usra dafa gis bu ñu defee ay étude dañu gis ne góor yëpp juróom lañu waaye soxna yi sëy yëpp tamit juróomi soxna lañu góor yi góor yi takk soxna yëpp juróom lañu mais soxna yi sëy yëpp juróomi soxna lañu kon man mi góor war naa xam sama soxna ban soxna la ci juróomi soxna yële waaye sama soxna war naa xam man arfan man ban jëkkër la ci juróomi jëkkër yë jëkkër bu njëkk bi waa fiqul usra muy xam-xam buy jàngale wàllu sëy ñi ngi koy symboliser animal bi tudd mbonaat mbonaat xam nañ ko benn rab la buy dund ci ndox léeg-léeg ñu fekk ko ci teen léeg-léeg ñu fekk ko ci dex am na ay jëkkër yoo xam ne ci biir société bi ñu ngi leen di symboliser mbonaat bu ne jëkkër bi mbonaat la dafa am ay qualité yoo xamante boo ko gisee ci góor ak ay defo yoo xam ne boo ko gisee ci góor dañuy naan góor googu walla jëkkër googu mbonaat la mbonaat nag dafa am ay euh, qualité yoo xamante ne yu positif la mooy yow loolu boo ko xamee ci sa jëkkër dangay ngay xam point fort am fi mu nekk te yooyu yëpp daa ci ñëw benn par benn mais mbonaat dafa am ay point faible point faible yooyu war nga ko xam ak ay menaces parce que saa su sëy amee problème rek daanaka la ko andi mooy dañoo egg ci point faible wala ay menaces bon kooku war na fekk xam jëkkëram. lan mooy ay point fort am lan mooy ay point faible am waaye lan mooy ay menaces saay soo xamee soxna si xam na loolu ci jëkkëram moytul ko ay point faible am moytul ko ay menaces rek sëy boobu dina jafe pour mu am ay ay problème mais kazalika encore soxna si ci boppam dafa am soxna suy sëy ci kër gi te moom tamit mbonaat la soxna si am na ay point faible am na ay point fort am na ay menaces jëkkëram jëkkëram bi bi bi muy seel war na xam ne sama soxla sii lii mooy point fort lii mooy ay menaces am lii mooy ay faiblesse am bu ko defee ñoom ñaar ku nekk bu xamee sa morom ay point fort ay faiblesse am ay menaces am même sëy bi mënoon na am problème sax maîtriser ba ñuy maîtriser loolu dina tax cinquante huit pour cent wala soixante pour cent ci problème bi waroon a am ci sëy bi yépp problème bi dootu mujjee am bon dafa mel ni sunu technicien yi ñu may junj ne deux minutes la ñu dese wala benn minute bon fii la ñuy taxaw ak yéen wax leen ne ñu dox daje be alxamis bii di ñëw wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.